kenn ku ci nekk ci turam ak santam xam ni su ko jot mayoon ku ci nekk dinaa la fekk fi nga toog jox na loxo sant la gërëm la wax na li xam naa gis naa seen yéene seen taxawaay seen cofeel ci man ak seen cofeel ci JDS waaye nag loolu lépp xam naa ni man taxul de yaakaar bu ngeen am ci seen dëkk bii di Thiès yaakaar bu ngeen am ci seen réew mi yaakaar bu ngeen am ci ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi kon nag li xew fii ci Thiès tey jii ci ngoon war na ni ñun waa JDS war nañoo gën a góorgóorlu ca la ñu nekkoon démb ba ñu nekkoon collège lañu ñu nekkoon démb ba ñu nekkee lycée Malick la ñu nekkoon démb ba ñu nekkee université li ñu nekkoon tey ñu gën ci góorgóorlu mooy wut lu baax wut loo xamante ni mooy fonk coonoy baadoole yi coonoy askan wi ronkooñu baadoole yi ronkooñu askan wi ronkooñu ndaw ñi ronkooñu askan wi loolu ci laa nekkoon démb loolu ci lay nekk tey loolu ci lay nekk suba dama ni ah keroog bi nga xamante ni ñoom def nañ déclaration ni Babacar Diop di dugg Thiès manifestation bi di am ma ni ah gouverneur bindoon na Lat Joor Ngoone Latiir ni ko na génn Kayoor bu mu ci fanaan Lat tontu ko ni on demande au Kayoor de sortir du Kayoor comment c'est possible wax ni Babacar Diop bu mu dugg Thiès mooy demander à Thiès de sortir de Thiès ce n'est pas possible mënul woon am manifestation bi am rek moo mënoon am laneen mënul woon am heureusement ñoom seen xel ñëwaat na la leen mënu woon benn xoqatal benn tiitaan ngeen lenn loo xamante ni ñoom mën nañ koo def suñu kanam wala muy jaay doole boo xamante ni mën nañoo tax ñun ñu reculer benn pas bu gën a ndaw loolu amul kon ñoom nañu changer stratégie nañu changer stratégie yónni nañ ay ndaw ci télé yi ñuy saaga yónni nañ ay ndaw ci télé yi ñuy xas mais saaga ak xas boobu amul solo bu ñu ndaw Sénégal xasoon mu am solo mais ndaw Sénégal xasuñu bu ñu Sénégal saaga woon mu am solo waaye Sénégal saaga wuñu bu ñu Sénégal seetaanoon mu am solo waaye Sénégal seetaawuñu nit ñaa ngi jóge États-Unis France fépp di woote di signer pétition bi parce que dañoo tiit ah ñoo ngi tiitee parce que référendum la cette pétition ils disent que nous avons 300 000 militants J'ai besoin de signatures pour montrer à la direction du parti qu'elle est minoritaire dans ce parti. Nous sommes majoritaires. Cette pétition est un référendum, est un congrès supérieur qui arbitrera entre eux et nous, eux qui ont choisi la stagnation, eux qui ont choisi de rester dans le statu eux qui ont choisi le passé, de rester dans l'archéisme, un qui ont choisi de trahir l'héritage de Léopold Sédar Senghor, un qui ont choisi d'estamponter des postes, un qui ont choisi de s'asseoir sur leurs convictions, sur leurs valeurs, sur les idéaux du parti. Et nous, nous les socialistes, nous qui sommes le camp du mouvement, nous qui sommes le camp du progrès, nous qui sommes le camp du changement, nous qui sommes le camp des valeurs, nous qui avons choisi la justice sociale, nous qui avons choisi le militantisme, nous qui avons choisi de rester fidèles à Thiès, de rester fidèles à Senghor, à son nous qui avons choisi de rester debout dans cette nuit pour dire non à M. Macky C'est ça la direction indiquée par la JDS contre vents contre et marées, nous continuons de marcher, de nous adresser à la jeunesse de ce pays pour dire à cette jeunesse que l'espoir est encore et encore et encore dans ce Sénégal. Mes chers wax dafa bëgg war jot direction parti bi li mu bëgg du am ku mer bàyyi parti bi ñu def lu neex bu kenn dem nañ ñëpp toog ci parti bi le combat c'est à l'intérieur je ferai le cours des coordinations en tout cas coordination yi am fit je ferai le tour des coordinations signer leen pétition bi je ferai le tour des sections signer leen pétition bi lancer nañ bi au niveau international nit ñaa ngi koy signer signer leen pétition bi ku bëgg parti socialiste bañ a dee signer bi ku bëgg parti socialiste am candidat signeel pétition bi képp koo xam ne da nga fonk Senghor ak ndonoom signeel pétition bi dama ni da ngeen a bëgg PSD wala bëggu leen PSD da ngeen a bëgg mu dund. dund da ngeen a bëgg PS dund. dund dund mais signé leen pétition bi commencé nañ ko tey la pétition mi ngi jeex le 31 décembre à 18 heures. D'ici 31 décembre à 18h, nous avons besoin de plus de cent mille signatures deux cent mille signatures yooyu suñu ko amee loolu mooy wane ni référendum bi gagné nañ ko loolu dina wane ni ñi nga xam ni dañoo choisir rester ak Macky Sall ànd ak Macky Sall ndax mu ma leen Macky Sall di jox mais ñoom nañu jël muraake moomu mais nga la waaye nañu bàyyi suñu parti bu ñu rey parti bi parti bi am na ay góor yoo xamante ni taxaw nañ ba léegi yaakaar nañ ni mën nañoo tabax ëllëgu Sénégal mën nañoo tabax ëllëgu parti bi ñoom buñ bëggee dem nañu dem mais nañu bàyyi la suñu parti loolu mooy wax ji loolu mooy ali kalaj ji mais du ay menaces du ay xoqatal du ay saagawaate du wax ay problème mu teg dama ni problème mu texte amu fi assan wax na ko léegi kenn kenn ñi nga xam ni ñoo jiite parti bi kenn kenn ñi nga xamante ni ñoom boo waxee ñu ne wax waxu texte du la génneel benn disposition buy wane ni pétition dañ ko interdire la pétition est un instrument démocratique la pétition est une désobéissance militante qui s'adresse à une démocratie Lorsqu'une démocratie est en crise, lorsqu'une démocratie a atteint ses limites, les citoyens ont le droit de recourir à une pétition pour contester le régime et s'adresser à l'opinion. C'est cela le sens de notre pétition. Contester ce qui est, contester ce que nous vivons et une aspiration à un autre Sénégal, à un autre parti. Ce sera le sens de notre pétition. La pétition, elle est valable dans une démocratie. C'est parce que nous sommes dans une démocratie que la pétition, est valable. Si on était dans une dictature, dans une tyrannie, la pétition ne serait pas valable. Oui, il faut accepter cette pétition. Nous ferons le tour du Sénégal. Nous ferons le tour de toutes les coordinations, de toutes les sections, de tous les comités. Nous nous adresserons aux militants, aux militants socialistes qui sont encore restés debout, nous nous adresserons à tous ces militants-là pour leur dire que le cap c'est 2019 parce que le Parti socialiste doit revenir au pouvoir en 2019. Mes chers waa JDS xam leen yoon wi yomb ñoom décidé nañu de parce que li ñu am ci Macky Sall jaral neleen ko dama ni dama bëgg ngeen pare ngeen waajal seen bopp xam ni xeex bi day metti xam ni dina gudd. xam ne dina am xaaxam xam ne dina bëri xeer waaye nag incha allah dañuy yegg te dañuy am ndam incha allah dama ni la ngeen jàppoon démb lycée Malick Sy yàlla di leen ci may ndam ngeen jàpp ko université yàlla di leen ci may ndam ba tey ba fii di Cees ku ngeen xool bu ngeen sëgg su ngeen ci jàppee ndam dong ngeen di am ndam rek moo mën a am laneen mënta am dul ndam waaye nag foog ngeen gën a jàpp fulla ak fayda ñu continuer combat bi xam ni commencé nañ ko fii semaine bële di ñëw dañuy dem Kaolack et coordination bu pare dinañ fa wàcc pour nga xamante ni ñu signé pétition bi bu loolu weesoo maa ngi gërëm toute la direction de la JDS toute les femmes tous les hommes tous les jeunes les étudiants qui travaillent avec moi au niveau de la JDS man liggéey ak man yombul je le sais liggéey ak man yombul je le sais ñiy liggéey JDS du lu ñu wut seen poos